salut les amis c'est euh, tey nag dañuy ñëw euh, wan leen euh, fonctionnalité yu bari solo yi nga xamante ni moo nekk ci application note bi nekk ci iPhone nga xamante ni ñu bari dañ koy utiliser mm, mu bari solo lool moo xam élèves yi ak étudiants yi ak ñi nga xam ne ñu liggéey ci wàllu bureautique ak képp kuy def wàllu traitement texte fonctionnalité yu am solo mi ngi ci. boo ñëwee def nouvelle note exemple nga dugg yaa ngi am déjà fond noir bu fekkee da nga def mode nuit mais aussi mën nga utiliser. mode clair bu fekkee na nga bëgg mu euh, voilà arrière-plan clair nga xamante ni da nga mën a gis bu baax bu fekkee ne da nga nekk fu am euh, fu am soleil wala yu mën a mais bu fekkee da nekk fu la dem wala guddi ngay bind mën nga defaat euh, plan sombre bi nga xamante ni di nga mën a gis bu baax a baax. mën nga protéger say not parce que not yi ñu bari ci dañuy bind seeni secret seeni plan seeni projet seeni euh, lépp lépp lépp lépp discours ah wala luñ bëgg a wax nit di ko préparer ah yëpp ci lañ koy bind léegi euh, mën nga ñëw boo def bindee si ba pare nga ñëw euh, fii verrouiller boo defee verrouiller mun nga utiliser mot de boo xamante ni yow rek yaa koy xam wala nga utiliser sa Face ID nga xamante ni not bi ngay boobu boobu nga sélectionné def ko verrouiller yow rek yaa ko mën a ubbi. am na beneen option aussi muy notes yi ngay bind euh, mën nga ko partager ak sa meilleur ami frère wala sa sœur wala sa say ami de classe nga xamante ni yow note bi ñoom mën nañ ko gis en temps réel en temps réel note bi ngay bind nii rek la lay concerne booba yeneen yi mën nañ ko may mais bi ngay bind nii en temps mën nañ ko gis en temps réel ngay bind ñuy gis say ami de classe wala yu mel noonu soo ko bëggee def euh, da nga cliquer trois points yi nga ñëw partager euh, laa note voilà whatsapp email ah, application yi nga sélectionné exemple whatsapp ah, nga dem ci contact nga sélectionné contact gu ah, ki nga bëgg kii nga ajouté ko soo ko ajouté nga demaat sélectionné aussi beneen contact moo xam vingt personnes trente personnes nga leen boo ajouté nga def continuer après ñoom loo bind ci note bi dañ koy gis doon dessiné aussi ci note bi am na assistant automatique bi ci nekk boo xam ne même boo dessiné sa loxo xam ne day xaw a dëng wala nga def bëgg a def triangle mu dëng am na assistant bu ci nekk boo xamante ni mën na la corriger automatique euh, euh, pour jubbanti li ngay dessiner exemple tey voilà nga def na triangle boo xamante ni jub na kocc naka noonu aussi cercle mën na la corriger aussi euh, nga aussi ci not nga def liste à cocher tey boo doon dem te exemple nga war def say achat supermarché wala boutique nga dem bi war a jënd ay euh, truc mën nga cocher yi ngay jënd yëpp wala nga war a def benn programme euh, yoo xamante ne ci journée bi war nga def li war nga def li war nga def lii nga def liste à cocher exemple tey supermarché war nga jënd lait war nga jënd sucre war nga jënd chocolat war nga jënd Euh, orange extra extra boo jëndee ba pare mën nga coché yi nga jënd coché coché coché yi nga jënd yëpp. Euh, mën nga aussi utiliser euh, application nag bi pour def say tableau moo xam liste tableau ngay def wala genre say programme boo sélectionné tableau déjà indi na la ñaari ran ak ñaari colonne mën nga aussi yokk rang yi nga soxla boo cliquer ci trois kii point yi insérer un rang. nga ajouté euh, rang yi nga rang yi nga soxla yëpp ah voilà nga euh, bëgg yokk colonne yi mën nga def insérer une colonne voilà nga ajouté colonne yi nga soxla yëpp ba am euh, tableau bi nga soxla voilà application note bi aussi am na scanner mu nga ci scanner say document say pièces carte crédit carte d'identité et tout ça boo ñëwee ci appareil photo bi nga def clic euh, choisir une photo vidéo pour ajouter des contenus multimédia wala une prendre une photo vidéo en direct wala boog nga scanner say documents yëpp def ko ci def ko ci sa note nga mën ko utiliser foo mën a nekk